sëriñ Bay mii tamit bari na lu bari loo xamante ne partage nañ ko ci dëkk bi ak ci département bi muy ndaw loo xamante ni xeexal askan wi rek moo tax mu jóg xeexal askan woowu tamit ci laa nekk ba li ma daloon fekk ma ci te duma ma si deltu ginnaaw parce que man dama jàpp ne Mbàkke Tuuba cir bi nu war a am ba fi may wax yow amagun ko ci état kon nag lépp loo xam ne mën nañu ko war nañ see xar suñ tànk tubay ba lépp lu ñuy defal maanaam ci yeen dëkk yi ñu defal ko département bi ndax bokk na si ñi ëpp koom-koom ndax 1500 milliards dañ ko dugal si bés bi bu fekkee ay ndaw ñoo ëpp ay ndaw bu fekkee ay kilifa la ñoo fi ëpp ay kilifa yaakaar naa nag situation politique ak situation bi nga xamante ne moo war a am ci économique Touba kenn waru koo deltuloo ginnaaw te boo xoolee tey fukki at yi am ak ñaar daanaka benn ministre moo ma a am bu yeewam Touba ak ba fi may wax ak yow juróom-ñaari at a ngi nii amul benn ministre bu mas a toog département Mbacké ci table conseil des ministres te ndaw ñi fi nekk ñu jàngalam boroomi xam-xam ngeen loolu lañ bëgg nag mu dakk mu jeex benn yoon parce que dañoo jàpp ni fa ñuy nosee ko ñotti ñun ñoo fa war a jiitu si kaw kenn waruñoo jiitu ndax li ñu am kenn amu ko ñu ngi leen di sant bu baax ndax lii nga xam moom ngeen di day moom lañ war a def ndax li tax mooy ndaw mooy avenir réew bu fekkente ne du ñoo toll fii nga xamante ni dañuy toll foo xamante ni dañuy wut ay lijaasa ñu war a dalal seen xel nga xam ne bu ñu noppee daan am maanaam fu mën a xéwloo mën a toog mën a gën a réfléchir seen xel gal loolu ngeen di ko organiser duñ man lu sant leen si gërëm leen si te xam ne daal en tout ñu ngi leen di wax ni monsieur le maire jëfam wax ñu ko waxee démb la woon tey doo ko ñëw yàlla tamit moo ñu boolewaat ci coalition wax dëgg yàlla parce que bii fi jeexee kenn ku nekk am na foo nekkoon ba yàlla mi ñu boolewaat wéetoon naa assemblée lool tey nag bu ngeen ko tànnaatee mu ñëw yaakaar naa assemblée moom <laughs> ñaari Abdou ak Cheikh ak ñeneen bu ñu fa nekk dana gën a xumb ndax bu ma dóoree fi mu rukk fii <laughs> waaw ndax Mbacke moom la woon député moom commune nu Mbacke moom wax yàlla mu la woon député moom léegi nag xëy na moom bu ñëwee dana ngeen am député boo xam ne comme man Touba laa dëkk moom mu dëkk Mbacke ñu ñaar ñu ànd dóorandoo en tout cas daal ñu ngi leen di souhaité ngeen jàppale ñu ndax tamit wax dëgg yàlla ay ndaw la yoo xam ne wana nan tamit leen wan ndax bu ndetul Touba ci assemblée wax dëgg yàlla man maa loolu nag il faut ñu bàyyi ko xel bu fekkee nag ifance nañ ñu ah Touba moom kenn du ko tudd ensemble ak Mbacke. waaw ndax ka fa am na ku fa nekkoon nag koo xamante juróomi at defoon na ko foofu mësa tudd Touba bu nag bu ngeen dañ ko yónnee woo tamit moom du tudd Touba ak Mbacke mu waaw loolu tamit tamit ngeen bàyyi ko sëñ bi ndax yéen gis nga il faut man dama bëgg ngeen jël seen responsabilité réew mi rawatina département bi parce que le 31 juillet bu ñu gañee département Mbacke war naa am ñetti ministre gën ngaa néew te ndaw ji lañ koy jox ndax liñ mujj daje ñun waxtaan mooy ñu seet ndaw ñu ngi xam am nañu xam-xam seen loxo seet na ñu jël leen def leen si kanam ñu loolu mooy suñu procès yeewi ak wàllu loolu mooy procès bi te loolu wax nañ si ba noppi bu ñu tànnee poste premier ministre ne ñoo war a tànn dañuy jël ndaw ñi def leen si kanam jël jigéen ñu teg si Sénégal man jéem ko 2024 man jéem ko jërëjëf. donc di remercier aussi monsieur le maire Abdou Mbacké ndaw aussi ak euh, l'honorable député Cheikh Abdou ak délégation bi nga àndal yëpp mais lii su bi mooy juróom-ñaareel at bi mais su ñu ko mënee réussir du Serigne May Seck rek parce que Serigne May moo nekk ci bopp bi rek mais ay jeunes lañ yoo xamante ni dañu boole seen doole donc gisoon ko ci sunu mag bu ko daan def te boobu député la woon ñun yàlla def nañu nekkuñu sax dara salaire sax amuñu ko mais danañ boole suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm ak suñu morom yi ñu àndal donc yàlla def ko ñu koy réussir chaque année te dañ koy rendre monnaie nekkul loo xam dañu see war a féliciter parce que lu ñu war la ñu war ko def ñun ñëpp parce que ku nekk da nga war rendre la monnaie ci li ñu la defal sa dëkk te daf ñoo war monsieur le donc da doon ñëw di si jàpp et tout cela mais lii moom surprise la quoi. surprise la si campagne ngeen nekk aussi campagne ni mu xatee ngeen dagg ko écourté ko ñëw c' était pas évident donc xam nga nit aussi tam tam lay wax day nekk loo xamante ni looy gëm lay doon parce que moom dama wax lu ma gëmul. donc mu nekk la nga xamante ni vraiment temps cher na te campagne fi ngeen nekk ci département de Mbacké yaatu na te mënoo leen a dem fépp ngeen dagg seen temps ñëw ko pour kon jox ngeen ndaw ñi seen gëdd parce que lii ñuy ñu koy defal. 74 pour cent élèves yëpp Touba ñu jógee kon duñ koy defal waa Touba lañ koy defal ñu ci ëpp moo tax boo ñëwee aussi le maire est présent aussi dafay nekk li nga xamante ni lu am solo la. yàlla dogal na liggéey naa ak ñoom de 2014 à 2022 ñu traverse ay situations yu difficile ba yàlla indi ñu tey fi ñu indi vision bi ñu amoon it mooy fexe ba conseil communal la jeunesse am édifice boo xamante ni du ko ñëwee kenn ci Sénégal. loolu am na fexe it ba ñu nekkoon ci ay conditions transitoires mooy fii tey ba liggéey boobu pare lii ñu taxawal tey muy togg ay berne di ko yóbbul ñi def examen au bac bañ ko tàmbalee ak léegi bientôt six te day gën a jëm kanam rek kon lu yàgg rek dëgg la sunu gis-gis nag mooy àddina loo am danga ko xeex may félicité jeunesse u Mbacké ci xeexu ndoxu Mbacké ndax ndoxu Mbacké bi su amee tey ndox mu neex xeex la ndax xeex boobu jeunesse bi taxaw ak population yi bañ na duñ fay kon xeex bi waa Mbacké xeex ba am gain de boobu maa ngi ciy félicité jeunesse bi di ko jaarale ci le président conseil communal de la jeunesse ak association ci doon jëm Sénégal plus de pour cent voire soixante pour cent ndax suñu ay statistiques wérut lool ay jeunes lañu kon bokk na ci projet yi ñu am ak honorable député ak suñu équipe proposé ko ñi nga xamante ni mooy l' intercoalition ni président Abdoulaye Wade tegoon parité jigéen ñi ak góor ñi yem même traitement ci bépp élection ak bépp poste de responsabilité ñu bëggoon introduire benn projet de loi boo xamante dina jox benn pourcentage de vingt cinq à trente cinq pour cent des listes député bu fi amati wala wala bépp élection locale bi amati pour que jeunesse bi mën a occuper vingt cinq ba trente cinq pour cent listes yi ndax gis nañ ne jeunesse bi maanaam joxuñ leen seen cër ci liste yi nga xamante ni dañ koy faral def ci ay élection réew mi lii honorable député wax dëgg la ndax dañu wax ne bu coalition bi gañee dañu bëgg a jël les jeunes cadres teg leen au devant de la scène ndax ñoom jeunes yi ay jàngkat lañu wante ay bañkat lañu ndax jeune bu am avenir ci sa kanam doo luubal doo dëngal te it doo def lu lay topp mais mag moo xamante ni dem na ba retraité nga continuer muy jor ay poste de responsabilité yu mag loolu dafay décourager jeunes gis nañ ne xale yi jàng nañu mais amuñu liggéey li ko waral mooy fa ñu war a dugg liggéey fa ay mag a fa toog yu retraité ak yu war a dem ci yeneen organisation kon ñu ngi féliciter encore jeunesse bi yëpp euh, di ñaan yàlla nag liggéey yi ñu sumboon ci Mbacké ak ci département bi ñu mën a àggale ko wante accompagner autorités yi fi nekk pour que ñu mën a gën a am doole pour tous les projets en ñu mën ko réaliser